salaamaaleykum mbokk internet dakarnet.com comme ni ñu koy defee saa su nekk di wër ndaanaan yi uh, ak artistes yu nekk fii senegal tey ni ci daal koo xam ne ko xam-xamee ko ci tagg Seydina Mohamed di bàyyi ci Mohamed Alla Diop te moom la ñuy dalal mi Serigne joob Diop yaakaar naa ni namoon ngeen ko duñu def lu dul rek jox ko kàddu yi mu nuyoo après ñu dikk ak moom ci waxtaan uh, sëñ Alla ñu leen di di la ziar. Uh, waaleykum salaam mbokki jullit di mbokki taalibe yi rawat na ci mbokki Sénégal. Euh, su ma nee Sénégal it dama ci daal di jukki dëkk bi nga xam ne mooy ndakaaru su ma nee ndakaaru it tànn ci benn gox muy Pikine su ma jëlee Pikine tànn ci beneen gox muy ginnaaw raay gi nga xam ni falaa féete euh, wax dëgg yàlla boolee benn nuyoo di leen ko séddale ñoom ñëpp muy baatu asalaamaaleykum wa rahmatullah te yàlla wutal ko jàmm ñi waaw di nuyoo rek di leen ziar baax yéen maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay jërë ngeen mu ngi noonu kooku yaakaar naa ne senegal xàmmee nañ ko lu ñu def rek lu dul ah, dugg ci waxtaan bi lu ñu bëggoon xam rek mooy ah, sëñ Alla sa débuté ci jàngkat yi fi nga jaar ba tey. waaye sama jaar-jaar damay wax ni Alla ay jamono benn xale la woon rek boo xam ne yàlla moo ko xiir ci laar ci aar amul nag lu ma dañ ko pool ci aar def naa musique def naa théâtre kasak naa way naa mbapat woy naa simb waaw yooyu yëpp bu ci nekk gàllaru naa ci waaye gàllaru bi ma ci doon gàllaru lépp nag bëgg ma bëgg woy la waaye taxawul ma gëm loolu ma doon def te ma ci doon wut ay bunt bu seet bi ma seetee bunt it nag ba tombe euh, benn histoire bu ndaw bu ma amoon ak benn groupe bu jar sama jaar ci turam euh, ñu ni nag dañuy ñëw samay bokk pour indil ma plainte ndax morceau bi ñu dégg ma di ko woy ñoom ñoo ko moom moom moom morso bi ñoom ñoo moom morso bi ñoom booba jamono li ma wax ne yàgg na parce que jamono boobu mu ngi war a toll ci normalement ay quatre-vingt-dix-neuf eh, nga xam ne booba daanaka woy bëri booba orchestre booy lim boo génnee ay kese star jaloore da nga naan number one ni étoile Dakar boobu yooyu ñu fi nekkoon ak euh, jamono super jamono waaw ah, jamono jamono la woon après avant ah, ah, jamono après super jamono yaakaar naa mooy jiitu sama magu papa bi nga xam ne moom lañ ma tuddee ñu Seydina Aline eh, gane si woon ñu ne fa ñu ñëw toog ñu dalal leen ñu ni daal ñoom la indi seen tànk daal mooy dañuy gis jamono yëpp dañuy dégg ci mbapat yi damay woy benn morceau boo xam ne seen morceau la te morceau boobu ñoom dañoo defoon seen répétition bu woon ko def kaset léegi nag ma yàqal leen ko léegi nag ñun daal dañ fokk def seen plainte pour man sam papa ma loolu ban morso la ma ne ko ah ñoom ñoo ko xam man xawma ñoom ñu wax ne morso sàngam la ma waaye morso bi seen kanam ñun ma effectivement ñu ne ci affaire bu discuter sam papa ne da ngay bàyyi yëfi jàmbur ma ne ko moomuñu ko ñu ne ci affaire bu discuter sama turandoo jóg ni leen eh, yéen ay lan ngeen. géwal wala géer wala maabo wala ñeeñ wala ñu wax seen askan ñi ay naar la ñi ay làkkat lan daal sama papa ne ana jamono kon nan la mën a changé ba koo xam ne waaso woo xam ne bokkul ci askanu way ñoo fekk doomi géwal bi way nga ne ko lii moo ko waroo koo way dama lay porte plainte kon jamono yàqu na moom na daa jël affaire bi en charge moom taxaw ne sama papa kii du bàyyi wooy day way woyal ba mu neex la léegi plainte bi na ñëw su ñëwee man ak moom ñooy ànd wuy ji ni ma bis boo ñoom ñi taxee nga bàyyi morceau boobu ngay woy noonu bu ma la déggatee nga wax naa ko diggaale ak yow kon woyal may ma may ma fit nag euh, dama doon ko xam ne maay sama taaw papa sama taaw yaay euh, dégg sama bay jur lool bëgguma dara leen naqar lu nu daw rek maa ngi daw ci leen neex su ne waaw ma ne waaw ne dit ma ne déet loola waral lu ci bari sax musuma nangoo génn ginnaaw raay waaw dana wax ne ni nga mel nangam nangam demal fii dëkk fii ainsi man leen ginnaaw raay laa amee sama lépp fi laay toog ba keroog yàlla def lu neex ci man. Euh, comme ni nga ko waxee ñëpp dañoo bëgg a xam tamit exactement ban moment nga jug na man xaamu jug euh, di fas yéene tagg Rasulullah. waaw mooy mooy damay wax ni bi loolu amee euh, yàlla dogal may dem suma benn atelier benn xarit sama mag la sax ñu di ko wax Moustapha Diagne Tafa Diagne moom mu la bu ñu demee jamonoy korité wala événement tabaski buy fanaan di ñëw. bu ñëwee dañuy jëndal warga ak suukar ak meew ñu toog muy ñaw ñu ñuy tëgg di woy biir atelier bi bi dem na ba am sax mujj gi formel ñu daayira bay daayira bi daayira murit la woon ñu roy comme Gaamu Fallou Ndiaye di ko woy même lool sa jaaroon naa ci waaye booba taxut moom mënoon mbaa ma am mokkalef boobu am naa neex baat bi am naa technique bu pour woy rek waaye yoru mokkalef bi léegi nag beneen xaritu Moustapha bu nuy wax Mboro ñu tudd Modou Dieng la tuddoon moom Modou Dieng ñu ko woy Mboro moo ma gis foofa ne ma léegi nag kaay ma yóbbu suñu benn daayira bu nu formé daayira boobu suñu benn yaay bu ñuy xam mère Ami Diop moo ko formé woon fii ci marché Waranka ci biir ginnaaw raay bi ma ko waxee man ma ne ko ah man day dama toll ci gone goo xam ne damay jàng métier. te ay cotisation guddaa juma ak ay weeri dee yooyu du ma ko am mënuma loolu sa problème ni wu ci maa ko res boobu sa cotisation yi bëriwul. guddaa juma cent franc nga joxe weeru yaakaar naa téeméer. wala du ma téeméer deux cent cinquante ñu di ko dajale ndax sa guddaa juma ci la def beñe dañuy def ay meew xam nga ndax bu mën a attiré gars yi ñu mën a ñëw waaw mu ngoog loolu moo waral affaire bi bi nekk ci loolu la nekk ci loolu nag ba ma nekk ci daayira bi moo jëng dama dama defal loolu man na ca nekk na ba yàlla dogal ñoom ñu am benn programme bu war a jàngi si Joal Fadiouth ñu délégué nit ak waa daayira bi dem bari na ay tur mën naa mën naa cité tur yëpp euh, di dem ma jël sama saak def sama yére dem bi ma ñëwee ci oto bi ñu dugg ni ma yow doo dem. ñu la boole lu ma ne ak lu ma naqari. Mm-hmm. gàddu sama saak samay jooy ñëw sama kër sama papa laaj ma ma ne ko ah nee na doon dem waaye nee ma doo dem mu ne ma toogal xaar yàlla ma toog ñu dem jàngi jàngi semaine bi si ñu def seen réunion critique mm-hmm. semaine bi delsiwaat ñu def guddi ajuma ma ñëw guddi ajuma booba nag. ni nga waxoo ñoom waxoon ni ma yow doo dem Joal ni ma yow bu ko woon ci ñu demoon jàngee kon waroo def guddi ajuma bi. ñoom dañ laa tere daal maanaam jour ajuma. waaw doo ñëw ci guddi ajuma bi ndax réunion critique bi sax dala dàqu ne la bokkoo ci. booba xam na ñu te booba euh, ñi fi nekk di woy mënoonoo woy ba suba kër gi du am nit waaye bu ne àlla commencé na rek nga gis kër yi ñu dend ñëpp daal di génn su ma paree donte ba paree ñun ñu daal dem kenn ko sax booy bee ñu indi booy bee ñu indi. léegi nag affaire boobu nag xam naa moo la soge woon léegi nag. am ci concurrence waaw mu ngoog am ci koo xam ne ne dafa xaw a xam naa ni rànk ñu affaire ko jàpp. daf may yootu ci loxo boykaay yi ba ma génn kër gi dafa am noonu comme ça ruur koy yooyu nga xam ne am mbaar ci ginnaaw. ñu ne ci ñu ne ci beneen terrain bi nii suñu génnee ba ramb roq ba ci génn rek mu toj bi. doon métti waaw loolu su ma ko ne ginnaaw mu dolli taanal acca damal ñibbi. waaye gis nga léeg-léeg yàlla dëbb na ci fukk rek juróom-ñeent te am na fullay boppam joo xam ne moom yàlla boppam rek la gëm gëm googu mu gëm boppam tax na su paree ne àlla samedi laa koy may saakub ceeb wala sa àlla samedi laa koy may keesug diwlin wutal ko heure muy samedi ca cinq tàkkusaan bu tisbaa jotee àlla di bëgg dee xiif ba ñu yóbbu ko hôpital muy weñaaru yàlla du ko lii liibar ca saako ba te cinq jotut waaw booba am na lu yàlla nam bu yàlla namee loolu may génn rek dajeeg waajooju ngeen dajeeg léegi maamataar sama tëkkat bi munu ma yow gannaaw nga def na ko ma ma ah yow foo jëm man yaa ma tax ñëw ci daayira bi ma ne ko ah gannaaw man daayira bi mu doy naa fi quoi parce que ñii daal li may yenn attanu ma ko dañ may dóor dañ may dàq di ma saaga lu ne munu ma ah. ñaata ab ñaata at nga amoon ci say âge. waa normalement xam naa ne ah, jamono yooyu su ma amee ay fukki at ak ñett fukki at ak ñeent ci lay toll parce que en 1977 la 77 77 ak léegi ñaata at la war naa bari te fi ne maa ngi ci sama 56 ans. kon xam ne dootuma xale 50 50 55 ans sax waaw maa ngi sama 50 50 normalement waaw dootuma xale kon boo ko ci génne normalement jamono boobu war maa am. ay fukki at ak juróom fukki at ak ñett ci lay war a war a toll waaye nag mënoon a kasa it lool nag doon xale bu ndaw léegi nag bu yàlla dogalee nag maamataan ni ma nan dem suñu kër ndax man damay ñëw fi seetaan rek waaye sam papa am na rajo am na ni tabala am na ni lépp ma ne ko nan dem ci guddi googu noonu àndee ñëw kër maamataar kër Pape Boynaar fekk sunu xarit yi ndam si àlla si ndeysaan gën wàlla gépp gaañu nan bàyyi ndaw moom ma daan aw mooy sama aw principal Dame Fall moom it gaañu na ndeysaan waaw Ousseyn Pël Ousseyn ak Assane ñoom ñi ngi étalé ay seexlan ndeysaan bu ñu ñëwee fekk la ñuy yi ci mbedd mi doo dàq yooyu Mamata ñëw jël benn haut bi teg ci otopa bi benn deux siwo bi newoon foofu jël benn haut bi teg ci kaw douche bi branché affaire yi génn tabala yi daal di may jox rajo bi ma daal di ñam affaire bi neex ma ma jël air gars yi commencé bàyyi saamori bi daw ñëw. waaye kii kan la ma Mamadou foo jëlee kii nangam nangam ma woy affaire bi jeex kenn ku ne nag na ma nu ñu fexe ba jot la parce que boo jamono boobu téléphone amul. wala boog fixe yi moo am te fixe yi boo duggee ci benn gox daanaka kenn rek moo ko fi am. sunu koñ yëpp benn kenn moo fa amoon benn moo fa amoon fixe waaw léegi nag ñu joxante numéro ñu di ma woo léeg-léeg par guddi ñu woo ma ma dem daayira Abdou Xol xool léeg ma dem daay daayira euh, Cheikh Mbaye Ndaw bu ñetti mbaar léeg ma dem daayira pa masata bi ne woon da euh, télé mag noonu laa topp tegee te gaa yi newoon fi loolu gaa yi ma dajewoon foofu ñoo fa daan léegi nag ba Cheikh Boy Naar ñëwee ñu expliqué na ko eh sunu gëdaa juma démb gi day neex na mu ne ah waaw lu ko neexoon ñu expliqué ko mu woolu ma ma ñëw mu jaral benn gëdaa juma mu toog ma way ci kanamam mun na ma ne eh yow de moom kër gi sëkkëra léegi nag matériel bi sa matériel wax dëgg fa yàlla yàlla na ko yàlla yiir ci mbaraanu Seydina Muhammad yàlla na daje ngërëma yonte bi dafa ma daa dénk ba di ma wax ne ma bu ma dee samay doom bu nu amul pastefu def guddaa ju mag yi yow na ngay def guddaa ju mag wala na nga jël rajo ak tabale yóbbu ko sa di ko fa def kon xam nga ko amoon na matuwaay ci am bëggoon na ko waaw lii moo doon may góor góorlu ci mbir mi bon jamono boobu it nag mbay ñaan sàmbalaa gaamu mbay Ndiaye parce que jamono booba loolu rek fi ne ñaar rek fi mën a woy gaamu Mbaye Ndiaye wala gaamu Pape Seck Galañ wala gaamu du Seck Mari Fanta wala ku ci mel ni góor gi Abdou Mbaye ñooñu daal Pape Thioune Ndiaye waaw suñu paa yooyu kenn ku ne amul nga sa gaam waaye nag ni Mbaye Ndiaye meloon ba nit ñi xam ko booba ñeneen ci meluñu woon léegi nag fu nu jëm gudd gi ne ñu ngi ci gaamu jàng Mbaye Ndiaye fu nu ko dégg. ànd ak sunu grand frère yi dem seetaan yi bon ci loolu daal ci laa toqi ko ba taxaw ba ba mën a taxaw daal ba mën a am samay fu bopp waaw. aussi ñu gis la tey bi nga def sa benn album jamono jooj noonu bu neex macha allah album boobu noonu euh, nan nga ko doon préparé ba génne ko ba nga xam ni ba nga ko génne ñëpp xam nañu kat sëj àll moo nekk nii. waa xam nga wolof day wax ñaare ñor bi am na. lu nga sëm li indi am na. kenn gisuma ma damaa ñor taat bi dama ne ci terrain bi du ci dox di ci daw ba bu ma la rombee sax nga xam ni kii bu defee nangam nit ñi bëgg nañ ko bu defee nangam day dox ndax comme jamono bi nga toll nga xam ne da ngay jékki-jékki rek am sa benn copain bu la dimbali nga dem ni génne cassette wala nga def benn single nangam nangam léegi jamono sax single moo xew cassette xewatul voilà ñun nag danga nga daa ñëw def cinq titres sept huit ci benn cassette man génn guddi. génn guddi def naa ci ñaari kaset mais kasetu maam Bamba yaa sunu bato ak kasetu Baye Abdoulaye bàyyi na bi ci génn guddi laa def ñaari kaset di barke Seydina Mohamed huit heures bi ñu dugg studio deux heures matin trois sama kër may ma ma tëddi te booy boo ko defaloon fii du ko def te studio studio yi ma ko defee bi may ñëw fekk naa fa tabal yoo xam ne ba laajte dañ ne ma seen tabal ñi de seen borom def nañ fi weer chaque jour chaque semaine ñu indi benn air delluwaat di dajale. te amul air bu ma ci yëkkati daaneel yëkkati beneen ba mu ndoroog moom. est doo ci may tuuti bi mbok internet Dakarnet yi. waaw loolu dara. waaw parce que namu nañ la gëj na laa gis. loolu du dara. Eh, nabi ala kuli la naay xayrul anbiyaay sama waaja jar naa joo inni xibu rasulillahi sayyidullah obanta xasaraanu maalu wal walat walaysa yablu misarama abati bulawaani ula ulwal jaddadu asa ila naasin min layla wadaratwa wala tuqaarifo jumnum wala daadu saad waraane wa kay falaaw xowal xayri xalqi xaati batal ataaw rabul wara maalam yanalaat min almaarife min nuuri tajal kurbi alaya nuur bi kamat e xayrul lanaame yeneen bi mooy fii ka xalame lii nag boo gisee ma xala yow xam naa fi nga bokk lenn li corde la corde mën na doon ci xalam moo doon ci violon waaye bu nee xalam nga ñibbi ci parce que askan nga bokk la corde xalam boobu <laughs> ndeysaan macha allah comme na ko suñu papa waxee xam naa bi mu yëkkatee tey bu ñu ko namoon di ko laajte naan ko fan la nekkoon tamit ah, xam naa tey seen xol sedd na bu ñu jógee foofu dañ koy laaj te ñu gisoon jamono ji passé nekkoon ci covid 19 bi mu metti woon loolu ne yàlla na ko doon dundee en tant que soutien de famille. waaw am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur doomu aadama bu nekk ak ni la yàlla bindee am na ñoo xam ne tey ji nii bi affaire bi amee ñaari fan rek yëg nañ ko fu ñu daw di fa dugg fentoon di ñaan di àbb di leb am na ñoo xam ni bi mu demee ba am presque un mois leen dencoon lépp jeex na te mënuñ si doon àbb mënatunoo ñaan waaye nag nit soo koy masaw mbaa nga di ko digal da nga wax su doon mën man sama jëmmi bopp man du Twitter du damu du dara damay wax bi yàlla taxawee ak yonent bi Seydina ma isalaatu wasalaam tiituma ci rafuma ci jàquma ci àbbuma ci ñaanuma ci omuma ci bor lébu ma ni ma ko déggee noonu laa ko déggee ba këram may tàggu rek na ma ca mel laa ca mel sama toog laa toog sama dara manqué wu tuutiwu ma dara fekkul ma denc dara it nag day leer fekkul ma denc dara du ci banque bi du ci fenn du ci sama poos xanaa lu ma fekk ma ci sama poos waaye xam naa daal lu ma mën lu ma yàlla wërsëg su ma xëyee dinaa ko def lu ma defut samay doom danañ ko def waaw yàlla dimbali ma rëccu ma lu ma doon teel a am ak njaboot. waaw macha allah comme ni nga ko waxee mu ne ah, rëccuwul lu ko suñu borom teelee may njaboot mais duñ jigee foofu rek dañuy dem ci Mouhamed Alla ah, père nan nga gisee ah, booy boobu noonu booy boobu garaaw na. warul leen mën ay affaire am parce que léegi damay tendance léegi <laughs> léegi damay tendance quoi damay tendance quoi ndeysaan yaa ngi wax nag sama xarit. waaw xaritu xol. ndax doom dangay jur ay doom. Mm-hmm. waaye du ñàkk nga am koo ci gën a bëgg. waaye lii sax dugg mbëggeel waaye ak péeteeg la péete goo xam ne danoo bokk fu nu jëman ak moom ndax su ma yeboo ni doom yi ak askan wi ma nekk su fekkee danoo bokk quartier maanaam Mouhamed ñoo bokk kër ñu gis quartier bi leen bokk lu tax mooy que du sama taaw du sa taaw doom la am nay mag ñeneen ñi nag xañ na ñi dañuy jigéen ñi di góor kenn ki sama taa bi ci bàmba magam la ñoom ñaar ñoo bokk ndey bàyyi lu Mouhamed génnee bàmba moo ko réalisé mooy def perki bi moo koy tëgg moo koy def lépp bañ na comme ci fekk daan la génnal loolu moom doonam la moo koy def wax yàlla waaye du Mouhamed du ma def bon ni mu def magam jooju mu ma gën a neex parce que bu ko defoon neneen mbaa mu am neneen lu ma def mu am du mën a digaale waaye da koy wan ne ko chaque fois ne ko yaay sama mag xalaat boo ko wax ci ginnaaw nii balay def dara sax la yow bamba téléphone ne ko bamba ah man de lii nañ ma wax lii nañ ma def lii wax bamba ne ko nii nga def baa wax waxtaan nga ci paa yi ñu door maa wax man dama wax ne leen dem leen parce que mbir mi benn bunt la rek soo ko xasee xam la ci biir amatu benn problème ndax wooy wooy rek la te affaire bi deret la forantu wunu ko abbi wunu ko ñaani wunu ko jàngaani wunu ko ci deret la ku ci tëdd ba xaaju guddi mu la yónnee pak pak ne la waxal nangam da nga koy wax c'est force. aussi ñu gis la tamit comme ni nga ko waxee nga jaar fu metti comme ni nga ko waxee dem nga bëri ne da nga dem programme sax ñu ne la wàccal nga wàcc ak say saak est-ce que tey jii boo toogee nga gis ku mel ni sa doom Mouhamed Alla di jàng yow lan ngay yëg. waaye ñoom yëg-yëg moom day bëri ci fànn yu bëree bëree bëree bëri bare bëri démb bi ngi doon jàngulu ci trophée bu mu gañoon mu feete ngir ay fansam waaye bu mu taxawee jur doom doomi maam Matar mi may tëggal taxaw jël tabala di ko tëggal ma xool public bi sama bopp laay daal di gis dafa daal di la soit démb dem naa ba ci àgg man ne daal sama bopp ma ni non xool mën naa sedd waaye te du bisub jooy bu sama rongoñ ne put rek affaire bi yàqu ndax njaboot gi ma wër te damaa njaboot macha allah mm-hmm. eh, di am ni xam ni daal fi mu teg tànkam voilà dama koy yax saa su nekk na ko bu ci gaaw a gis sa bopp bu ci teg sa bopp jàppal ni mënoo dara jàppal ñu xamoo dara euh, bis bi ma ko njëkkee wax yàlla dafa dogal ñu woo ko téléphone jox ko addi Seydina Mohamed oto mu dem bu mu demee nekk ca nekk ca nekk wax yaakaar naa waxtu wi la tembe dem ba ba julli timis mu woo téléphone waaye xam nga da comme dañoo xaw a yabaate te Mouhamed ji tur bi dama ko duppee ci sama papa laa ko tuddee nee mu woo ma ma père ma ne ko waa père mu ne ma waa su ma nee la père nga ne ma père ko nuy ne ko neel fils mu ne fils la jaxasoo parce que ne waaw da papa may sa papa waaw léegi ba pare nag nag ngay sama doom may sa doom sama turando sama papa laa tuddee ndeysaan jafe nekk déggoo ne foo bu ne père daal moom ma jaaxal quoi foo nekk nii ma ne ko maa ngi sama atelier benn xarit boobu maa ngi fii toog fi ma fekk nii fi laa toog hmm. mun maa kon maa ngi ñëw dama laa soxla ne surtout ma ànd benn booy ñëw droité daal di ñëw toogul sax dafa taxawul ma ne ko doo toog mun ma déedéet ne ma lii nii oto bi laa jëli woon ma ne ko man sa ko na yow nag looy jëm di oto ma dara mun ma déedéet. benn bi daal moom moo waa naa Mohamed ne ma ñëwal jël. ma àndoon ak saat dem jëli ko. daal ci. ma daal di jël caabi dugg ci oto bi. taal dawal wër def ñëw gaari na ko ah macha allah parce day baax na lool yàlla na nga ko muurloo daal di yëkkati caabi delloo ko dellaat ma caabi ji ni ma addi seen na ma daal la ko jox. delloo waat la ko moom. ma tekk ba càgg ma ne ko jërëjëf ku defut dara du ko dégg. tubaab bi boo yégee ku mu wax merci mbaa nga dégg ko xamal ne xolam sedd na ci ko ko mbaa lam ko doon liggéeyal yéeg matal na ko ma ne ko bu ci yëg sa bu la ci kenn wax lu tax nga yëkkati ci mbagg xam nga lu tax mu ne ah, ma ne ko démb ak barki démb xale yu toppoon sama ginnaaw ba ne ay àlla numéro 2 ak àlla numéro 3 ñoo la dàqoo yemoo leen fii ñoo la dàqoo fopp waaye suñu borom jagle ko mayagu leen kenn oto mayagu leen sax welo mu ne ma ne ko kon boo juddoo barki démb tey topp ci nga wax ba am loo mën a yëngal nit ba tax mu yëkkati teraanga di jox la ko du yow. Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam yaa ngi muy dégg bu baax mu ne ma ne ko waaw ma ne ko ndokk na bi nga matalee ñu jox la ko toppoo àdduna toppoo ñu ne kii ne ah xale nga nit ñi bëgg na la nga war a mën a daw wala kenn ñu ne ah Mouhamed àllaa ngi ne nga di ko sagoo nga yëkkati ñu ne sa baay am da ngay baax doxal ñu dox yàlla la gën li ma sax moom. am na tamit benn kii bi ñu seetaan sax mu naan euh, man lu ma gënoon marqué sama papa mooy que ni euh, ay temps dañ daan dem di jàngi dañ daan dugg ci ay super. mu mel daal moom loolu la gis ba tey mun naa ne tax réewam réalisé na parce que loolu bi mu koy wax gis naa ne loolu mbégte la ci moom. nit su fekkee ne nar nga jom dangay ngay denc te benn waxkat day wax ni bopp bu nar a jëriñu ëllëg nopp yi sax a ciy sax ñoo ca sax nopp yi sax lu dégg moo ca sax man li ma dund ana amaan sax min li may ànd ak moom waaye li ma dund te ànduma ak moom ci caagunu ñàkk oto ak démarche moom du ko dund ma yàlla def ko nag su ma xasee ba def ko nag gisuma ku may wàccee doomu aadama du ci mën dara moo tax balaa ma ko defee dama koy setantal dama koy segg dama koy segg ba teg ko ci anam boo xam ne ku ko dégg dana ah yàlla na kii nag saa dafa sonn dama constaté ci nit ñi jàng leen ba xam ni ñuy dundee ba tax na fi ne mënatul maa bett damay dox guddi jàng ju gaay jàng damaa am ànd ak Cheikh Daara bi mu njëkk bi sama benn xarit. moo doon sama manager jógee yëmbal ñu indaale ñu oto ba Texaco ñu wàcc di jël super pour ñëw fii bi ma ne caax dugg ci Njaga Njaay bi ba toog benn booy comme toll yow rek daal di gis ne waaye eh, kii du père àlla man nag ah man waaye père yow ak artiste bu toll da nga dugg super ma ne ko waa ah, lu ne ci super mu ne ma awoon ah, non yow gannaaw yow waroo dugg ci affaire yi ma ne ko ah. bu ma la tontoo doon xuloo waaye bu ñëpp defee ni yow naa yàgg dugg super parce que amaana mu am ko bañ ma ko jox amaana amu ko mu am yéene ci defu ko kan su ma amee ko am yéene ji ci defu ko ak ki ko am te joxuma ko dañu daal di bokk àtte àtte bi nag mu ne ah ma ne ko nag ba mu des pay yàlla mooy fay loolu ma sa wax la ak yow yàlla moo yor pay gi waaye dama la wax ni la moom loolu la ma añale moom keroog ma jël boobu denc. ñu dem ba beneen bis ma jël benn kalandoo jóge ay jàng yëmbal ci guddi gi omo oto bi ma ñëwee ba télé bi mag ci cinéma bi mbedd boobu laa dëkkoon sama soxna fara sama deuxième femme booy yi nga xam ne ay nocturne du nelaw guddi taxaw ci mbedd bi mu war a jàdd ma ne waa ji nii ngay jàdd bi waa ji booy taxaw waa ji ñu leen pim pim ñu àndu bi na àndoo ma def ni di wax ak benn booy bi naa ko waa booy di xanaa gis ngeen oto bi rek benn booy la eh père ñu ne père àll la ay père pardon de ah ma jéego leen ba pare moo war benn booy ba ay ah, père day jël taxi bàyyi kalandoo yi ma ne waaw léegi bool naa bu kalandoo bi ak bu super ba mën na te denc pour ma ne la àddina naqaree xam ñu dem ba benn bis ma jógee Ndakaaru jël taxi ñëw ba fii boobu tunnel bi amagu fi ma ñëw bay jub ci tunnel bi. waa ji ni ay firi ginaaraay ma ko noo man fi dëkk bu ñëwee ba ci raay bi rek wàcce ma ma ñibbi mooy wàcc da ci booy di fay di fay sama kii nii benn waaye gestu ne ma <clears throat> ni ma waayoo képp baal oto yi baal taxi yi nii ah, yow daal yàlla na la yàlla may kooku sax moo tane yàlla na la yàlla may sa oto bopp. waaw ma ne amiin waaye ñaanam nga nangu na. maam sama oto bopp yor sama BM di ko dawal ba ci tëli bi embouteillage bi benn waaye fekk ma fa ni yaa da am 4-4 man de man ne ko man fan laay àkkee ji kenn ku si yéene parce que fee laa nekkoon ñu di ma fa jëlee di ma jëlal waaye nag li ñu dara lépp lépp lépp nag nag dara jigéenu ma ci parce que ki ma yi tax na ma tax na ma ma taxul sax ma jël waaye yàlla na ma ci ba mën a jël taxi bi ma jëlee taxi bi ka ma fekk ne ma yaa da am sa oto bopp am naa sama oto bopp ba ma sama oto bopp kii ku ma ko xeebal ba ne ma am nga 4-4 aw ma ko ma 4-4 waaye am naa oto teraanga <coughs> teraanga jox ma sama doom na ma ko moo xam ne 4-4 gënu kon loolu sant yàlla waaye dama ca jàngee ni àdduna xam doomu aadama yi ñoo maanaam euh, bokkut ñoo bokkut kii 1 la kii 2 la kii 3 la kii 4 la kii 5 la noonu lay demee te kenn ku ci nekk nag nanga nga mel noonu lay noonu la sa fond demee noonu la mel ba sa jikko ak sa xalaat. mais nag père am nañu ne ne ne Mouhamed Alla moo la moo la dàq de. waa ci fànn mën damaa dàq waaye du ma ko bañ. xam tax eh, gis nga bis bu la yàlla xiree nga dem ci réew moo xam ne ñëpp dañuy futte ko def taat ne dugalee ci nga sol yére génn ci seen biir yaay doon seenu doof dégg naa c'est force moom loolu moom mbokk internet Dakar di euh, laa xay laa xay jox euh, ci commentaire yi yéen après ngi ngeen wax ma euh, Père Alla ak Mouhamed Alla kan moo daax way bu ko neexee ñu teg fa top 5. ñu dem waaw. <laughs> maman bi am la. ci jamono bi la toll. te dama koy wax ne ko dafa am foo xam ne dafa fa seen toon pour tegoon fa sama bët. te bu ci loolu laa imposé. muy moderne bi. Mhm. que dafa am loo xam ni man li ma daan way xaj na egg na bitim réew waaye waa fii la gën a neex waaye boo demee ba wala ci instrument bi léegi pour ma mën a génn nag léegi nag kooku fële koy déglu waa fële léegi da ngay toog ku jigee fi Sénégal dem Europe gars yi di ko laaj ban séeréer ci ngeen indil kenn moo fa nekk topp léegi kan moo fa nekk topp ban séeréer ci ngeen indil mu génne ni ay eh, booy sàngam nangam nangam nangam loolu li la koy may mooy léegi instrument bi moo la koy may parce que léegi li la waroon a dund ci seen diine xaj na mënu jot lépp ndax ko xam ne booy liggéey kenn liggéey mooy la sax pour nga julli du la may sax pour nga war a mën a mën a way maanaam booy woy liggéey ci ab tubaab boo xam ne du jullit ngay woy ci woy diine ci boppam ah, ki la nar a saboote te buggul tey Sénégal yow da kay wax ne ko kii day prière day julli. woy mais père du ñàkk des fois nga woo booy bi jox ko kele na ko teel. non ci leen dëkk ci leen dëkk ci lañ dëkk parce que mbir mi peeloo la waxtaan la yëfi géwal la. waaw léeg-léeg mu dégg bu jàkk ne ma papa man de lii laa for nangam nangam ma ne ko ay boo ci woon nangam ak nangam nga dégg mu daal di ma reeta sama papa daal dégg waaw waaye nag euh, macha allah yàlla may ko muy intelligent ko am fit ci li muy def it euh, la waxee ne yi mu jot a def nii Mamba Mbaye bato bi astafurlah euh, waaw sëñ Tuubaa yaa sunu wettel bi xam nga boobu Mamba Mbaye sunu bato moo ko jur. parce que boo déggee Maam Bamba yaay sunu bato ak Serigne Touba yow yaay sunu wéetal. danaa benn benn kii bi moo jur bale. <coughs> la ma waxoon <coughs> moo ko jur. la ma waxoon booy bale dama ko war a mën a aywa père ñun bàyyi na la ñu ngi ci Mouhamed. <laughs> ma ne ko gestul ma gestu ma ne ko fas bi Mouhamed yor sama fas ko jur. mun naa ma yow képp mënta wax ak yow. léegi nag sama diggee ak ñoom ba ci sunu copain yi fi mu ne nii bu ñu toogee sax danga naan dootuñu ay papa ak doom. waaw waaw kafante gisoo dem day woy di der man ni de dog ko rek ma pare rek mu ne ma xam nga eh, rajo bi bis bi du sa <laughs> nga waaw waaw xam loolu dafa neex hmm. yàlla dimbali ko mu am fi ci li muy def ñu toog kër ga waxtu koor comme nii mu jékki-jékki rek di woyantu eh, jour boobu nag eh, sama rongoñ génn ndax morso bi tax gars yi gën ma ràññee ci weeru koor laa laa tëgg kii bi anam bi muy morceau boobu ñu naan sunu sunu sunu yanaari ñaan na ceppe ya ñu may ko loon fala may yaayam na be baay Fatima na be. waxtu ko laa tëdd nii rek. ci néeg bi yaayam toog ci buntu kër gi di toog ndogu di woy woy xaar ma may jaaga du nga du nga du nga kañ laay sey batu du ma jël air bi fi ma tëdd nii di ko mën ba càgg ma jóg fekk ko ne ko xam nga lii ngay wax nii dafa neex te boobu maa nga war a jàng ci ngoon gi suñu koñ tout près ma ko li bu ngoonee danaa ko woy neneen noo xam ne danga nga deew di nga jaaxle bi ma ko waayee ci ngoon gi dafa yaay ji loolu wax dafa ne doo nit léegi nag noonu ma dikkale noonu noonu toog ci kër gi weeru koor di waxtaan ba caag rek ma dégg ko muy wax naan eh, yoneen be ku la bëgg a raw texe ku la bañ juum naa li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi. waaw Mouhamed Alla yow laa la message gis nga sa papa bii nii dama woo sees si mayu dara yow incha allah naa yow sees si la waxtaan ak yow bu baax a baax di la wax nga xaaroo mais nag père nag kontaan nañ la ci yow parce que minute di jeex na temps bu ñu amoon jeex na amoon mbégte ak contentement bu wér a wér du toog yow ñu def lu jox la ah, sa dernier kàddu nga tàggatoo gars yi. kon maa ngi bokk rek di sant ñëpp. di am euh, kontaante ak mbégte. te xam ni nii rek la. Euh, ni ko tubaab bi waxee seenu daanu doonoo bokk loo xam ne mënuñu ko séddoo muy alayhi salaatu wasalaam euh, yàlla dimbali ñi ñi tagg du ñante ay salaatu wasalaam euh, bu fekkee ne am nañ ci fukk maa ngi ñaan yàlla juróom-ñett yi ko joxal soppe yi wala juróom-ñeent ko joxal soppe ñun benn bi rek sax amaana ëpp nañu ndax it nag benn mag daan wax ni yàlla su loxo la dina jàkk xam ne ab bool suur na la bis bu la duyalee paan de la séddale waaw te wax dëgg fa yàlla eh, di wax nit nag sunu doom yi yoolu xale laa koy waxe sunu doom yi ci ki mi ñeneen ñi ne yonent bi yaatu na géej la iñaanoon ko kenn terewuñ ko kenn waaye tamit nag balañ ci def defe tamit ni laaj gis mag mu la jege nga ne ko ah waa nangam dama ko xalaat nangam nu mu demee mu la nangam ak lii ak lii la du la wàññi dara da yokk loolu dama leen koy may rek waaw ngir jëm yàlla yonent bi jërë ngeen message boobu am na solo macha allah bi ni ko doon wax rek mu nekk sëñ Alla Diop yaakaar naa ni ñëpp xam ko ràññee ko mu nekk tamit nit ku oyof ndax bi ñu ko woowee ne ko dañoo bëgg def ak yow émission dina loolu yéen samay fis ngeen heure boo ñëwee rek ñu def ko incha allah di leen wax ah, ëllëg ak beneen daanaan la ñuy dajee waxtaan ak moom du nuyu sama cameraman Toumani di ko jëfal di ko wax bi